mbokk yi wa rahmatullahi abada alhamdulilahi kasir alhamdulilah kulli haalin waaye di julli si yonent bi sallallahu ak waa ak sahaaba ak képp ko xam yaa ngi topp sunna bi ilaa yawmul qiyaama ñaan yàlla ñu bon yàlla ñu xëy jàmm indo ko mi jàmm jannante ba yàlla sàmmale aar leen yàlla defal ñu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar moo ko jur ñaa fi jaray Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi jàngalekat boobu te nag ñu ñëw wax leen mahabbatullahi azza wa jalla nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla subhanahu wa ta'ala bugga bu mu bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla cofeel bi mu am si yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo taana yonente la Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk ki gën si doomi aadama yi yàlla moomu moo moo ñu ko gën a bugga moom yàlla subhaanahu wa taala moo gën a bugga yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndig waxtaan bi passé ñu waxtaan waxtaane saxaaba yi bugga bu ñu bugga yonte bi alayhi salaatu wasalaam ba tax na seen yëpp seen alal ak seen doom ak seen waajur ak seen bopp yëpp ñu jébal ko yonte bi alayhi salaatu wasalaam naka sunu yàlla subhanahu wa taala moom tamit cofeelam si yonte bi alayhi salaatu wasalaam yàlla subhanahu wa di ñu wax kan mooy yonte bi alayhi salaatu wasalaam si maagal bi ko yàlla maagal ak cër bi ko yàlla jox yàlla subhaana wa taala melokaan yu ko jox ak melokaan yu yàlla subhaana wa taala taga yonent bi alayhi salaatu wasalaam na yonent boobu moom la yàlla wax si aaya bi yaa ayuha nabi allah yaa ayuha kan la oo fi yonent yàlla muhammad salaa salaam la oo yaa ayuha nabi xool ko oo jaaru la ko ooyee parce que moom yàlla moo ko tànn sital ko ko xam ne kenn mënu koo jam si dara moom sallallahu alayhi wa ndik yàlla def ko motal yëpp lu tax yàlla ne ko yaa ayuha nabi yàlla ne inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nazira yàlla ne maa la taana yooni la pour nga seernde waaw nekk seede si kan si kaw yonente yëpp pour bu ne yow mi yàlla sallallahu alayhi yi jiitu yëpp yooyu kër yomal qiyaama yooyaay taxaw sernde ndik seen nit ñi nañ bugg daa wax ne ah ñun de yàlla yoonu si ñun yonente yonente sallam mooy taxaw sernde ne yéen waxu leen dëgg yéen yëpp xeet yi passé yëpp xeet bu nekk yàlla yónne na fa yonente xoolal kan lañ jox mu sernde ñëpp mooy yonente ba yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne mooy taxaw pour sernde ñëpp loolu nag maqaama bu ko yàlla defal defal ko benn yonente mu ne waaye si kaw loolu nag moom yonente bi sallam yàlla mu nekk ko xam ne mubashiran waaw mubashir mubashiran wa nazira waaw mubashiran mooy ko xam ne nay dikk ñi nga xam ne dañoo jaamu yàlla ñi nga xam ne dañ toppa diine bi ñi nga xam ne dañ toppa si alquran sunna lan la yonent bi sallam di bëggee lan la leen bëggalee ne mu ne leen yéen ñi nekk si yoonu dëgg bi yéen ñi nga xam ne yéen nekk si yoon bu jub bi yéen mi nga xam ne yéen nekk si alquran sunna yéen arjana ñeen la leen mubashiran liman ataa allaha bil janna ku toppa yàlla rek yonent bi sallam mu ne yow arjana nga dem waaw wa naziran liman asa allaha bi azabi shadid waaye tamit mu xuppa wala mu tiital ñi nga xam ne dañoo mooy yàlla ñi nga xam ne dañ bàyyi jàngale yonent bi alayhi salaatu salaam ñi nga xam ne dañ toppa seen bànneexi bakken yoon sa salaam ne ah ku bàyyi yoon bi nag yàlla nga la waajal mbugal bu metti mbugal boo xam ne kenn du la aate yàlla ñu yàlla mosal si mbugal boobu bon mbokk julliti kii mooy yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla di ñu wax kan mooy yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne mu waxaa si beneen aaya ne mu ne wa ja'alnaakum ummatan wasatan li takunu shuhada ala nnaasi wa yakun rasul aleykum gisa fii nag yàlla ñëw di wax ne wa kazalika ja'alnaakum ummatan yàlla ne xeeti yonte la Muhammad sallallahu alayhi wa la yàlla di waxal fii ñen ñooy xeeti yonte la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk yooyu cool yi bari na waaye ñen ñooy xeeti la Muhammad sallallahu alayhi wa mooy ñu toppa si lim ak saxaabaam yi waaw loolu mu ne yàlla mu ne maa leen ngeen nekk xeet bi nga xam ne yéen nekk si digga bi digga bi mooy xeetu yonent la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li takunu shuhada ala naas ba kër yawmal qiyaama bokk na ñiy seernde xeetu yonent la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wane akay yàlla akay yaa yónni woon yonent la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen xeet yëpp nañ dem bi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala e, si xadis bi nga xam ne yawmal qiyaama kër yawmal qiyaama yàlla subhaanahu wa taala bam dajale àdduna bi yëpp ñëpp xeet bu nekk xeeti la ko demlee si maam Adama nga xam ne fa la àddina commencé ba xeeti yonte la ma sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp ñu dajaloo sa maxsar maanaam sa langa bu rëy boobu sa ndaje bu rëy boobu nga xam ne benn ndaje du ko mos a tollooti ndaje boo xam ne ña deewoon si maam Adama ba ñu mujjee dee si kaw suuf ñëpp a fay ndaje amul kenn manqué oot ndaje bu nit rek doomu adama oote am na ñu koy teew am na ñu ko dul teew waaye ndaje bi amul kenn ku koy manqué góor ak jigéen mag ñëpp koy fekkee waaye xeet bu nekk rek ñu nga taxaw seen boor waaye nag si xadis bi gàttal nga gis groupe bu jóg dem si yónente la noo ndig bés boobu bés bu tar la mooy doon ñëpp utali yónente la noo pour mu sowe leen pour mu rescue leen pour mu ramu leen mu leen déedéet du du man waaw du man mu ne ñu dal di dem si ki nga xam ne mooy yónente la Ibrahim Ibrahim ne du man ñu dem si yonte la Moussa Moussa ne du man ñu dem si yonte la Isa Isa ne du man yonte la mu ne aha kañ ba man man la man waaw ana laha man maa ko moom Moussa sallam mu dem sa kanami yàlla pour ramu jaam yi mooy shafaatul kubra ramu bu mag ba mu sujud yàlla ne ko bam sujudee ba yàgga ne ko ey yaa Muhammad sigil sigil nga laajte loo laajte ñu jox la ko sallallahu alayhi wa loolu wane bugel bi yàlla bugga yonte bi sallallahu alayhi wa yeneen yeneen yeneen yeneen yonente yi ma tiddanu yëpp mooy yonente yi ay ulul azmi min ar-rusul mooy yonente yi nga xam ne ñoo gën a mag si yonente yëpp mu yonente la Nuux Ibrahim Musa Isa alayhim salaatu wasalaam ak kan yonente la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nekk daw na responsabilité ku nekk daw na res ku nekk nee na du man kana jël bés boobu kan la yàlla teral bés boobu kan la yàlla jox teranga boobu moo yente la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom si bi la gane àdduna weer bi nga xam ne si la génn àdduna tamit waaye bés bi nga xam ne ñun ñëpp moom lañ jàpp ne bés boobu mooy bés bi mu gane àdduna déedéet bés boobu la génn àdduna léegi sax nañ jàpp ne bés boobu la gane àdduna mu dee si bés boobu ndax naka euh, lan lan moo war a war lan moo ñu war a war si bés boobu dañu war a toog di ko màggal ne dañoo dañoo màggal juddoo te si bés boobu la dee mbokk jullit loolu dañ war a sitara suñ boppa dañ war a sitara suñ boppa ndik bési deeyam bi amul benn wérante incha allah su dar si ñëw nañ ko gën a faram-fàccee yàlla ñu defal buga bi mu bugga yonent bi buga ba ñëpp ñu ànd a dugg arjana yàlla defal ñu ko defal ko suñu waajur wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin amin